asalaamaaleykum mbokku internautes yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di wax ngeen wii di abonné eh, ci suñu chaîne bi lu ci am solo la donc surtout ngeen di partager vidéo yi ñu ñëw ci première période bu suñu international sénégalais di Ismaïla Sarr euh, ci diggante Marseille ak ki nga xamante ne mooy Panathinaikos ci euh, match retour tour préliminaire Ligue des champions donc match aller ba dañ leen gagné euh, gagné 1-0 match retour bi nag instant bi première période bi bi mu commencé suñu international Ismaël Sarr dafa des passe décisive ci deuxième minute yi jox ki nga xamante ne mooy Aubameyang mu dugal donc sur une magnifique donc ouverture donc bo xamantene euh, attaquant gabonais bi dafa def profondeur Ismaël Sarr dugaloon donc parfaitement euh, euh, ki nga xamantene mooy Aubameyang conclure dugal magnifique macha surtout passe décisive il a été extra il a été extraordinaire vraiment. passe décisive bu rafet la def actuellement mi ngi def match bu nice moom Ismaïla Sarr de même beneen suñ beneen gaynde bi di Iliman Ndiaye donc suivre leen match bi rek après bu match bi jeexee day ñëw defal leen analyser leen match bi donc euh, kon wéy leen di abonné te di partager jaa ngeen